بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسني الأقدار يلاو sal fi baqaa bi li fii ka yàllaaw tey ci àjjuma ji yemoog le 13 novembre atum waa association pour le développement de Touba Ndiarème di kuréel gu nekk ci Touba Ndiarème ay góor ak i jigéen mag ak i ndaw séq ba fule kuréel di taxaw taxawaay bu am solo ci dëkk bu sell bii di tubaa ngir amal ay liggéey yu fasantikoo ci biir dëkk bu sell bii di Touba moo xam lu jëm ci wàllam màggal baa sax muy cant baa lu mën a doon ci liggéeyal Serigne Touba waa association pour le développement de Touba Ndiarème taxaw nanu ngir liggéey ci liggéey liggéey bu looloo waral nag tey ci àjjuma ji waa association pour le développement de Touba Njaareem amal journée nettoyage bu am solo ci daara ji nga xam ne moom la ñu dippee daara yi Serigne Fallou Mbacké nga xam ne mbokki taalibe bi ñoo jaayante jëndal daara ji pàkk bu am solo ngir xale yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba man di fa jàngi loolu waral nag waa association pour le développement de Touba Ndiarème ñëwoon fa tey amal fa sunu nettoyage bu am solo bii ginnaaw nag bi ñu balee ba pare oustaz Cheikh Faye mi nga xam ne moo jiite daara ji daara yi Serigne Fallou Mbacké daat xaadim rasul ci dëkkam bu sell bi di ñaan képp ku leen ci mën a jàppale ak noo ko mëne lu jëm ci wàllam jumtuwaay ci ay mbale ak la caaju nga mën leen ci jàppale lu ci waay man ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kàddu yi lañu yëkkati ñu teewlu leen kàddu yi nag kàddu yi gàtt lay doon xanaa kàddu yi sant rek lay doon ak sant yoo xamee ni ak kàddu yoo xamee ni kàddu yu mbégte lay doon di feeñal bu baax suñu mbégte di leen fàttali nag yàlla la ma waxoon si alquranul karim yàlla moo ne woon i'malu fa sa yara allahu wa a amalakum yàlla nee na kuy jub jubal lu waay jub bu dee lu baax la man yàlla maa ngi koy gis bu dee safaan la man yàlla maa ngi koy gis bu dee lu baax la man yonent bi maa ngi koy gis bu dee safaan la itam man yonent bi maa ngi koy gis kon li am solo mooy luy waay di jëf na ko jëf si ak xam na ko jëf itam si ak ndax gis nga mbir yi fi ñu rawantee nekkut ci jàng wu rëy nekkut itam si martaba bu waaye doomu aadama yi fi ñu yar rawantee mi ngi aju ci wàllu yar mi ngi aju itam ci wàllu taalibe mi ngi aju itam ci wàllu jëf mbooloo mi nag dama leen di sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan ci barke maam si Ahmadou Bamba yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla jàppale leen di ñaan mboolem àdduna bi du ma wax waa Sénégal da mbooleem àdduna bi laay wax képp kuy dégg sama kàddu sa nga bëgg liggéeyal yàlla bëgg liggéeyal maam si Ahmadou Bamba ñoo ngi lay ñaan mbooloo mi nga yëkkati sa alal loo leen mën a jàppale nga jàppale leen ko moo xam si wàllu matériel bi ñuy liggéey la moo xam si lu man di doon waaye yeyoo nañ ko sa yittewoo nañ ko ndax barab bii de ku fi ñëwoon bu njëkk nga jaaraat fi tey danga xam ne ñii li ñuy def sëñ Tuubaa rek moo leen ñor yàlla rek itam moo tax ñuy jub man amila saalihan fa li nafsihi wa man azaa fa alayha wa ma rabbuka bi salaamin lil abidi yàlla nee na ku def lu baax sa bopp nga ko defal ku def lu bon itam nee na deretu mbagg du mooy mbaggum borom kon ba leen yàlla xiiree ngeen jóg di liggéeyal yàlla di liggéeyal yonente bi di liggéeyal Sëriñ Tuuba kon dañ leen di bàyyeeg yàlla ak yonente bi rek ak maam si Ahmadou Bamba mi nga xam ne moom moo am fay mu fay leen ñun nag lottu nañ si fay leen waaye nag am nañu suñu làmmiñ am nañu itam suñu ratatat di ko teg ci alquranul karim wa rattilil qur'ana tartila inaasa nulqi alayka qawlan saqila kon fu ñu toll ñoo ngi répété alquran di ñaanal mbooloo mi fu ñu toll itam ñoo ngi répété xaside maam si ahmadou bamba yi di leen ñaanal mbooloo mi yokku jëm sa kaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu